ba euh, dossier bi ñu dugal ko procureur jox ñu dëgg ñu sanctionné leen alors ci noonu la ñuy neexale suñuy avocat bu fekkee dañu war a gëstul un dossier ak yooyu doon noonu lay deme mais Jamra mm-hmm. amul benn structure je le répète qui nous verse un tout petit franc alors mais terewul nag am nañu des fiches de souscription dinaa yónni sama gos bi mu indi ko fii bu fin du mois mu jox astu nga cotiser ak tamit kumba gise xeebuñu dara fukki dërëm cent francs loolu dina permettre transparence bi am ñu xam fu financement yi wala boo contribution yi sax fu muy fu muy jógee mais xam nga loolu dina leen crédibiliser je sais mais nag duma doguma la mais dafa am des contributeurs yoo xam ne vraiment ñun mënuñ ci dara da ngay gis ngay gis kilifa diine bu jóg daan ne naa yéen ngi préparer une tournée Touba Tivaouane Ndiassane Thiénaba mhm. euh, pour dénoncer Euh, euh, euh, les deux homosexuels yi doon sëy ci biir jumaa ji da ngeen bëgg a ut avocat ñu yóbbu leen tribunal mm-hmm. alors mu ne man de maa ci cotiser lii waaye dama leen di ñaan daal ak ngir yàlla mm-hmm. bu ci sama tur feeñ nga kooku on n'a pas mais xam nga foofu xam nga foofu yéen a ngi wane benn transparence yéen a ngi essayer d'être crédible aux yeux des Sénégalais et de l'opinion mais bu ñu demee tamit bay gis Jamra essayer de de rencontrer yenn ci ay charlatans loolu est-ce que seen combat tamit foofu du tax ñu daal di décrédibiliser jamono on a fait pire que mais mais mais ma ma c'est-à-dire. Jamra dañ ko xamee ak koo xamante ni non seulement ay valeurs lay défendre mais aussi côté religion bi am na loo xamante ni euh, da ngeen ko fay défendre nanguwuñu mbirum ay charlatanisme euh, wala ñi nga xamante ni li ñuy wax. apporté luñu dara Sénégalais comédie sax la gën a ndirool que du sérieux mm. Jamra di approché ñu mel noonu loolu quand est-ce que parce que am ngeen ci ay retour gis ngeen tout récemment événement bi fi xewoon avec euh, ce fameux monsieur là donc loolu aussi est-ce que foofu juumoo leen. et il faut quand même ngeen loolu ñun dañu yàgg di dékku coow yu mel noonu parce que ñun suñu principe mooy nous rejetons catégoriquement toute forme de merirando loolu tubaab di wax la tendance à hurler avec les lou ñun bu événement amee dañuy xool suñu perception suñu analyse en tenant compte de certaines valeur daal di xam quelle est la conduite à tenir lii nga wax coow loolu toppoon nañu en 2005 avec le grand agresseur. casseur de station d'essence multirécidiviste champion d'élévation mu di Alioune Abi Talib Samba surnommé Ino ñëpp geddelese ko Jamra dem approché ko mais il faut pas l'abandonner parce que dafa nekk koo xam ni dafa def njuumte te on peut l'aider en lui tendant une main fraternelle ci gàttal parce que c'est une longue histoire Latif moo ko jël encadré ko toppatoo ko jàngal ko alxuraan ba à un moment donné dama toog 3 mois ma dem làcc ji nekk waaw fu innoo toll mu ne ma mu ngi ci amay tasaaluna ñu tegati ci ay weer yu néew mu ne ma mu ngi tabaaraka lazi bi yadihul mulk ba innoo bi muy génn àdduna le 29 mai le 29 janvier 2005 mokkaloon na alxuraan daawatul raté aucune heure de prière bàyyi na tooñ bàyyi na agressé dal di rangé wu l'islam looloo ko tax a jóg christianisme looloo ko tax a jóg defar nit tabaxaat nit waaye nañu bàyyi di beddi nit ñi di sànni. di beddi di sànni waaw maa ngi lay tontu ci loolu. alors bu ko defee you know même chose gisoon nañ ma may soutenir euh, euh, euh, Mouhamadan Fall alias 10 000 problèmes waaw Jamra mu ngi jàppale koo xam ne police dañ ko interpellé pour usage de drogue comment pouvez-vous être contre la drogue au point d'avoir créé la loi 2007-31 qui criminalise le délit de trafic de drogue ngeen dem di jaxasoo kii ñu ne dinañ jaxasoo moom. parce que il faut qu'on lui de la main nit bu bëggee delluwaat ci mu sax mustaqim bu dee dem na ba rendre compte erreur am bugg a tegu ci yoon bul ko rejeter ndax l'islam defar nit moo ko tax a jóg alors de la même manière euh, pour en venir à moom su ma sañoon sax duñ fi tudd turam. non ah, bàyyi ñu tudd comme ça mu leer bàyyi ñu tudd comme ça mu leer waaye man je parle du du principe surtout ak li nga xam ne. waaw waaw mais ah, bu dee principe nga wax ma tontu le principe. non non waxal ci kukkande alors lu leer ci loolu la ñu bëgg. débat bi amoon. Mhm. est-ce que mën na xar paanu ndox est-ce que mën na xar mii si mburu ça ne nous intéresse pas ñun li ñu ci intéressé mooy ba kukkande yëkkatee kàddoom gu rëy googu. tout le monde a vu que dans réseaux sociaux yaa ngi doon baax et qui était en deux camps il y a des jeunes qui ont fait une petite vidéo de trois à cinq minutes di wax ne ñu nga askanoo Soumbédioune di ko menacer ne ko ah lii nga bëgg a def on t'attend de pied ferme deux jours après mu am quatre ou cinq jeunes yu def benn vidéo nee na ñu nga askanoo Kolda daal di porter la réplique à ces jeunes de Soumbédioune ne leen ñun ñoo koy gunge ba Soumbédioune alors imaginez ces deux daje. lu ne xaj na ci te dara gënu la hypocrite nga nekk ba safaan am ngay jouer au rôle hypocrite après la mort sa ce qui avait motivé suñu démarche ñun ak Abbé Jacques Seck coow Ousmane Sonko ak Adji Sarr malheureusement l'avocat nous a freiné on a te mënoon naa ñàkk mhm. alors kon looloo waral ma dem fa léegi nag pour ñaan ko wax ji na ko teg ci suuf léegi yow léegi yow. comme que léegi ma ñëw léegi un simple communiqué ne suffisait pas pour daal di. waaw voilà ci foofu euh, laa doon jëm loolu que euh, acte bi. déplacé wu dem ba foofu quand gis ne euh, Jamra organisation buy défendre yenn ci ay di di di di dàkk yenn ci ay yu ci mel noonu mbirum ay charlatan et tout daal di dem toog ak ñu ñu ñu. waaw donc su moo nekkoon def communiqué. c'est trop irresponsable. mbir bu amee demal ca ndeyu mbir la gën. parce que wax ji moom moo ko indi du communiqué koy réglé alors léegi nag ma demoon wax kon nag teg wax ji suuf parce que ça c'est en train de prendre une autre tournure mu ngi créer deux crans des pros et des anti anti Koukandé te ñooñu bu ñu dajee sumba jun moom maari day tane <laughs> alors léegi nag bi nga xamee ne def naa loolu pour montrer euh, rejoindre la ci li nga wax nous on n'est pas têtu euh, bi ñu gisee ne ça a été perçu euh, de manière assez bizarre et que bref on n'était pas bien compris j'ai fait une déclaration ma ne nag comme que jàmm lañ ci doon bëgg a dox mais malheureusement ça a été mal interprété ñu ngi yëgal askan wi ne Jamra dafa fas yéene tënku sur cette affaire la sur le sage proverbe du de Kocc Barma kii dit quoi te loolu moo gën a noppali fuuf Kocc nee na seetaan moo dàq ci ndaje alors moo tax nag ma ne kon par conséquent pour Jamra la page Koukandé est tournée noonu la demee. alors nag defar lañ ci jubloon mais on a été mal compris. Euh, je je vais je vais être un peu curieuse. bëgg naa def na vidéo dégg ngeen ko. mais mais nañu ay ay ay comme jàppee nañu ñoo xamante ni am. am matuñu c'est-à-dire parce que yow sa acte boobu la def sa xëy na mën na ko fa jaaralee wax ñu loolu que ni. Ah, man oh. ma doon kaf rek ñu jël. organisation bi toll nii jàmm la li jàmm la ñaan na ma et cetera. non non man assuré alors moom ci boppam bi mu defee loolu. am na lu mu def et c'est bien fait pour nous dafa ne maa ngi doog a xam ne ndekete Sénégal ay borom. <laughs> non man parce que xam nga lan laa bëgg a xam bu dee yow Ashura di bésu jaamu yàlla ñii di def junni istighfar suñu borom ne loo ci def ci ñaan danaa la jéggal say bakkaaru daaw ak yu ren ak euh, bés bu symbolique nga xam ne bës boobu si la suñu borom jéggal suñu maam Adama bi mu commettre la péché originel foofu ca paradis si la suñu borom xettali yoon ci yàlla noo bi nga xam ne euh, jël na son arche la dugal ci toutes les espèces de créatures vivantes sur terre pour mën a perpétuer les espèces si jamono boobu la yàlla xettali yont yàlla Souleymane euh, euh, et cetera bés bu bari kéemaan la suñu borom ne loo leen ma ci ñaan rek sama yërmande danaa ko dawal à mille pour cent mm. alors lépp ñu fàtte ko tege ko fee am na ñoo xam ne heure yooyu mu ngi leen naroon fekk sa jàkk ja ñuy istifaar waaye lu ñuy def ñu ñëw rek braqué wu si Soumbédioune dana ko xar wala du xar moo tax na waa ji ne ndekete yoo Sénégal ay boromi xel newu fii léegi man xam nga lan laa bëggoon xam je vais être un peu curieuse lan nga waxante Kounkandé ndax il était sérieux que moom mën na xar géej gi non waxtaan nañu plus d'une d'une vingtaine de minutes alors euh, je vous en ai livré la substance tout à mhm. nañ ko ñun li ñuy int li ñuy itteel c'est pas xar Lac xar piscine point E xar miisu mburu wala paanu ndox. Mhm. yooyu nañ ko tegee ne mais comme que ba nga yëkkatee ci wax ji soo wax ji na jóg na. Mhm. te kenn amul droit di bàyyi na muy law ndax di nga xam fu muy tàmbali doo xam fu mu jeexee nañ seet nañ koy seddale loolu moo doon suñu wax mu ne ma nag waaw dinañ ci waxtaanaat loolu laa wax ak moom alors mais. xam nga ñun on a rien à cacher dinañ ci waxtaanal comme si voilà il était important. <laughs> alors ba ñu génnee comme que Jamra n'a rien à ñu ñun bu ñuy def bu ñu paree dañ koy publier. c'était le ba ma demoon Kër Thione Seck bi Wally Seck porté plainte euh, Kanté. Mhm. xam nga on avait rien à ñu daloon suma kaw et tout